billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli barke borom tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloo noonu di ñu seetaan noo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bopp ñi ngi ko amale fii ci kër Serigne Abdul Karim borom makaarimul axlaax moom Cheikh Mahmadul Fadal moom Serigne Touba Xaadim Rasul tey jii ci ajuma ji ngir ànd ak yéen ci waajtaayu bis bu tedd bi ne ci suñ kanam mu di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab mu di guddi gi nga xam ne ci la Cheikh Mahamadul Fadal feeñe woon jamono ca Daaru Salaam ngir ñu ànd ak bokk yi nag ci waxtaan woowu ñoo ngi nuyu bu baax ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mahamadul Muntaxa di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ko wér waaye siyaare Serigne Abo Baraka xalifa Cheikh Mahamadul Fadal ak mbooleem njabootu Serigne Fàllu gépp di fab ziar boobu nag di ko teg ci loxol borom ëtt bii di Serigne Abdul Karim di ko ñaanal yàlla taxawaayam sun borom yàggal ko lool te dolli ak wéram te defal ko mbooleem ñu topp ci ginnaawam te defal ko mbooleem njabootu Serigne Touba gi ak taalibe Serigne Touba yi ñu feggoo ci jataay bii nag ak sunu wayjur di kenn koo xam ne bu ngeen jàkkaarloo ak moom rek da ngeen daal di xam lu bari ci fi nga xam ne fi la jataay bi jëm mu di Baye Gora Seye Baye Gora sey bokk ci ndaw ñi nga xam ne eh, yàlla baaxe na leen ba ñu feeñee jamono rek seeni wayjur jur leen ci yoonu murit waaye jur leen ci ëttub Cheikh Mamadou Fadal yëkkati leen teg leen ci loxol Serigne Falilou mu jàngal leen yaral leen boppam lu bari ci liggéeyub Serigne bi ci ak mu jëm lépp Baye Gora Seye mi bokk ca ña taxaw woon loole doonoon jëwriñ ci daaray Serigne Falilou eh, ñu feggoo ci sunu ndijoor ak Serigne Gana Messere Maxtaar moom it di ndaw loo xam ne eh, ba ko yàlla dimbalee ci wàllu njàng lam doon jàng lépp mooy sëriñ bi ak waa këram waaye ñu feggoo ci sunu càmmooñ ak sëriñ fallu Jatara sëriñ fallu Jatara it bokk ci ndaw yi nga xam ne ndaw yi xam-xam lañ waaye xam-xam ban mooy xam-xam boo xam ne ci njàngaleem sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la tënku mu génne ci daara yi sëriñ Saaliwu moom it nekkoon fa jëwriñ ca daara yi njàppandal ngir njëkkante ak waxtu wi nag bokk yi dañuy bàyyee bay góora eh, mu nuyoo ak bokk yi daal di ñuy andil nag ci jëmm jooju nga xam ne moom lañ fas yéene waajal bisam ñoo xam kan mooy sëriñ Falilou ci wàllu xam-xamam ci boppam waaye wàllu baatinam wàllu pas-pasam ci sëñ Touba ak li mu liggéeyal sëñ Touba ak liggéeyub sëñ Touba lim ko jaraloon ak ak niteem xam adduna ak li mu jariñ ci àdduna kon dañuy bàyyee Baye Gora su ko defee mu nuyoo ak bokk yi tàmbali kon Baye Gora bisimilah.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 ak bokki taalibe yëpp ngi fii kanam kër Serigne Abdou Karim Mbacké moom Serigne Fall bi waxe léegi noonu la deme bara noo waxtaan wi nag dañuy ñaanal sëñ Muntaxa Mbacké muy Serigne Touba ñaanal Cheikh Abou Mbacké mi fi nekkal Serigne Falilou ñaanal Serigne Abdou Fatah Mbacké mi nga xam ne moo yor kaddu waa kër Serigne Falilou ñaanal nag sëriñ bii nga xam ne moo di fii ngir bëgg lu baax te ko xeñtu na nga ko war a xeñtoo kon lii njëlbeenu waxtaan wi moo di sëñ Fallu sëñ moom li ma tàmbali woon léegi ma dellu ci sëñ Moustapha ñaanal fan yee dama faa dem jaare bi yàlla dogal na kii laa àndal bi ma demee ba jox ko loxo as jaxate moomu nuyoo la ak moom waaye moo wax ma kàddu yu ma diis ndax li may wax kii la dafa daal di wax aas na ko sama xarit ngi sama jëwriñ a ngi est-ce que sama xarit a ngi sama jëwriñ a ngi ma waxee mën na ko nag sëñ bi li ma fi indi tey mooy ñaanal si la ñaan gi nag ñetti baat la mooy yàlla ak yonent bi nit ñu nangoo liggéeyu Sëriñ Tuubaa yàlla na ni Sëriñ Tuubaa nangoo sa liggéey amiin loolu laa ko ñaanal daal di tàggatoo moom daal di ñëw sëriñ bi teg ci ay woy yoo xam ne doy na war jox ko sëriñ bi sëriñ bi liir ko bég ca lool ba far téye këy kon fii ñu toog tey muy ndindi kër Serigne Fallou moom la Serigne Fallou njëkk am ci àddina ci dëkk bi mu koy gor fekk na am na ay mag yoo xam ne dañuy jébbalu woon ci sëñ Tuubaa waaye sëriñ bi moom tàmbali na ndindi ba nàmm fi nawet fi nawet sëñ bi toog leen a jox ndigal booba mi ngi ànd ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Xari Njaay sëriñ Ibrahima Xari mooy maami sëñ Abdou Samad moo jur way juró bu jigéen mi ngi ànd ak ku ñuy wax Abdou Xayta Njaay sëriñ Abdou Xayta Njaay moo waral dindi ab waaye ngi ànd ak ñu wax sëñ Buur Mag Sëy moo jur sama baay Demba Korka Sëy ñoom ñett ñooñu kenn seen tubaab di déglu seen tubaab bu teg ko ci loxoom moo ko ñett ñi ma la jox bu ëllëgee ni ma la ko joxe nag man delloo ñu def bi mu tàmbalee liggéey gor dëkk bi ànd ak mag ñooñu ak seenu njaboot ñuy liggéey di yóbbu njëriñ liggéey boobu mi ngi tàmbalee ci juróom benn fukki góor ak ñeent ñi nekk ci daara ji ñii di borom kër ñii di liggéey di indi sëriñ bi nekk fi di liggéey fi ñu liggéeyee bàggale sëriñ bi fab lañ liggéey ak liggéeyu boppam li muy dundal sëriñ Tuubaa boole ko teg ko ci loxool góor gu ñuy wax Massar Sarr maam góor a sëy moo ko jox ay gëléem mu sëb ko ca yit ko Serigne Touba Njariñ diiru treize ba vingt set sëñ Touba ñibbi si Touba lu fi sëñ fa lu yóbbu na ko njaareem teg ci loxo sëñ Touba mu delloosi ko ba sëñ Touba dikkee mu yeesal ko ci sëñ Mourou Moussa noonu lay doxe ba jumaay Tuubaa ji ubbi ko sëñ Tuubaa digle ko wax ko jëf ca bi te bi liggéey bi tàmbalee maam sëñ Fall ci boppam dikk fii ci ndindi carrière bi feeñ fii ci ndokk bañ waxee ne kenn ku ci ne na joxe lam man ci ay nit ci sëriñ sépp ku am ñaari nit ku am benn nit ku am ñetti nit sëriñ Fallu Ndindi jiinu toog la tànne ñaar fukki ponkal ak juróom-ñetti daara fi Tuubaa ànd ñoom dem ndox bii am na foto boo xam ne bii ñu bari ci fo nit ñi gis nañ mi ngi toog ca kaw carrière ba kaalawu sëñ Ousmane bu sa toog wetam am na nguur su dend ak moom am na ñu ko jëfee am na kuñ koy eh, jàppale di wax ne moom la waaye man kama jàpp ne moom la du moom ndax yooye jamono du moom sëñ Fallu tàmbali liggéey boobu fekk na bind na sëñ Tuubaa leetar wax ak moom ci dama laa bëgg a liggéey toog nañ mu wax ko ko bind na jox ko benn bis sëñ Tuubaa yónnee woolu ku mu ñëw mu ne ko bind nga ma leetar wax ma toog nañ nga wax ma liggéey ngi dikk nag boo xam ne bii na nga ca feeñ léggéey ngi dikk boo xam ne bii na nga ca def loo man ak loo mënu liggéey ngi dikk boo xam ne bii ku dikk na la ca fekk bu dem na la ca baax bi yàlla doogalee liggéey bi feeñ sëñ Fallu nekk ci bi mu doonee xalifa 1945 Serigne Abdou Fatah Mbacké moo njëkk a feeñ ci xalifa sëñ Fallu ci góor soxna May Galas tege ca bokk suñu Abdou Karim mi benn sëñ Fallu nekk ca noona di liggéey daal di gor ñànk tàmbali ko am fa yetti at dem yenti at dem allié gii am fa juróom-ñeenti at tuxoowaat aliya delsiwaat ndindi 1959 fekk na liggéey jumaa ji lépp lu sëriñ bi bay doon na xalifa ba li jumaa ji noppee le 7 juin 1963 sëñ fa la am fi mbay ma mu gàtt lépp lu mu bay rek mel na ma mel lu mu def def ci tàmbali na jumaa jii tubaab bu ñuy wax na ak sénat yor ko ba ni jumaa ji noppee sëriñ na jiital ci payug weer par weer yetti weer jii fay leen jiital musuñu ko topp moom moo leen di topp ba lépp nag bi nu tuxoo aaliye dikk ndi ndigi cinquante man mii danoo jóge aaliye dem Tuubaa yelwaani reer booba dandaa dee bu nu yelwaan see bu noppee dañuy dajee ci buntu kër sëñ Fallu ku gis bi àndandoo di groupe delluwaat aliya biñ fi toogee di négaate sëñ bu saama fi fekk fekk mbooloo mu nit ampul bi ana ñi toog ñu ne nu na mun a ñooñu mën a ku ñëw du góor a sëñ a ko ankay ah mun a mu ñoo luy sëñ ma daal di jilee moom maa ko fekk ci baraagu sëñ Moustapha Guèye mu daal may ampul ko waa ji see ma ne ko waaw mu ne ma ñeme nga fi ndindee ma ne ko waaw waaw ma yebal ñeme naa mu ne kaay demal ma ndindi soo demee neel sa baay dem ba kork sëy ak Modou Mané sëy bu subaa ci talaata ji danaa fi ñëw seet si àll ba yeesalaat dëkk ba damay ñibbi muy cinquante neuf booba yàlla dogal na mbayu aliya mi jaay nañ gerte ba àggale te sëriñ bi defagul dara ca la tuxoo aliyee delfini bi bi mu dikkee bisub altine la xëyee fii bi ma ca guddi ga rek laa dikk fekk maa ngi julli timi eh, takk eh, timi jeebaagale toog ci bunt boobu bunt bi bitig bi ma daw dikk nuyoo sama bàyyi na ma looy wut naka ni mbaa jàmmale ma ne kaaw mu ne ma losoo ma ne ko sëñ bee ma yónni mu ne ma sëñ ban ma ne ko sëñ ban ñoom ñëpp ñu jóg ne ma loo wax ma ne ko sëñ bi ko def ma ne <clears throat> mu ne ma lu wax ma ne ko nee bu subaa ci talaata ji dana fi ñëw seet si àll bi yeesalaat dëkk bi day ñibbi di sengando ñu ne loolu lu ciy pexe ñu daldi woo góor gu ñu wax Mor mu yéene dëkk bi nañ ñëpp génn ñu taal weer ya ngeen xamoon di ay pétrole daal yor ay ampoule bay pénc mi ci ba mu set wecc ñu radd ko suul ko daal dem ci diggante jàkka ji ak buntu kër bi Ibra Xari Njaay mi faatu barki démb moo fa fanaanee jàng ba bët set set bi ñu xëyee toog tuuti oto bi korne maag góor gu ñox Ibra Xari Ñang fa jiitu sëñ bi ne nee leen mbooloo mi nañ toog xaar ma ma dem te ñëw daal di aw yoonu penku diir bu gàtt mu daal di waññeeku bu ba mu dikkee wàcc oto dafa daldi laaj sëñ Baaba Njaay ñu woo sëñ Baaba Njaay mu yor bant bu mel ni sans bant bii dikk ba jug ko na ko Mbàkke sëñ bi ne ko Njaay daal ko ne jege si mu jege si mu ne ko maa sëñ Baaba Njaay siggil ndigal sa doom ci baax ja Màgga Njaay sëñ baaba ne ko siggil ndigal mu ne ko baaw euh, sëñ baaba mu ne ko mbakki mu ne ko yaa baax doom Màgga Njaay moo baax liggéey bu ma mas a santaane su ma ko siinee rek sama xol set waaye ku ko gis tey day dana xam ne seral sama xam moo gën tàng daal di koy jàll daal di toog tuuti fekk na tubaab bi commissaire bii nekk ci Mbakke nit ku ñuul la woon ñu ñu di ko fi war a jële di indi nit ku ñuul ñu di ko wan si chef de village bi ñoom ñoo ñoo ñoo cadré si lañ fi joxoo woon ci addiya ak ganaar yi lépp ñoom ñoo ñe ko ñu daal dem sëñ bi ne ma yow booy añ dara delloo di ba ñu teg ci ay fan mu daldi di woote alieu donc yëpp daje mën na na néeg yëpp jóg daara yi borom kër yëpp daal di leen muy Cheikh Anta fekk na jumaa ji lépp daana kii lépp lépp taxaw benn soorot mag bi mu jaay gerte ga jóge fa dellusiwaat ci ndindi gi xëyee fi bésub altine dem fondation soorot mag bi bi mu koy fondation ci biir jumaa ji la yenn ca koñ bee féetee kër sëñ Thierno fa yenn ba takkusaan fondation bi mat mu ñaanal nit ñi di jëlaat otom delsiwaat nit ñi di altene talaata àllarba alxames mu dajalewaat dongo yépp ci kanamam su ma saa dongo yi laxasaa yi nag du nangu kenn kenn ku leen tas ñoom rek ak moom bi mu dikkee ba toog daal di woo mu ne damaa bëgg waxtaan ak yéen daal ne liggéey bii ma ne ànd ak yéen di ko liggéeyal Serigne Touba soror bi ma tàmbali barki démb moo ci des moo ci ëpp moo ci su noppee ba ma weexal ko bu ngeen liggéey ti lekk leen mu daal di tàggoo ñu dal topp mu daal di tàmbali cinquante neuf soixante soixante un soixante deux soixante trois jumaa ju mat mu inigré ko junni ci ñaari téeméeri ajjuma ak fukk ak juróom-benn doog a dem lam nu daa wax ci ale yi am na ndaje moom def ne alxames ji ma jëm fu dongob laxasaay nekk na fekkal yi maa ngi fii ñu di ma yett loo xam ci nit ñu woosi ma bañ dikkee ba sëñ fa luy wax wàccut oto bi dafa laaj jëwriñ ju ne ana kamala la joxoon nga ne ko ñu ngi nii mu ne ana moo defis mu ne ko maa ngi mu ne ana moo defis mu ne maa ngi nii kum laaj ne ana gaañ ñu ne ko ñu ngi nii fekk ne aliya juróom yaari daara fa ne daaray Sam Ñang daaray Mor Cissé daaray Fall Cissé daaray Youssoufa Touré daaray Ablaye Ndiaye daaray Maam Mor daaray Cheikh Ndindi Cheikh Ndindi moom nag mi moo doon sama jëw daaray Touba Mirina daam Mbay daam Jaxate Aliou Diop ngañ luum kenn musta bay lu gan bi yàlla dogalee sëñ bi dikk woote na xeram mu ne yéen ñii fi toog dama bëgg a waxtaan ak yéen tey ndax ay nit suñu àndee dañuy waxtaan ma xëy si sëpp sama tànk teg sama tànk ci suuf ngir liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen gont kon nan waxtaan daal ne yéen ñi dajee fii tey dama leen a bëgg wax seen bopp man damaa fekk la sëñ Tuubaa tànn ci la yàlla la yonent bi tànn ci sunu borom ba teg ko fee ma tànn ci la sëñ Tuubaa tànn di teg bi mu yéen ñii daal dina yéen ñi daje fi tey ëpp leen yéesu leen gimiñ dugg leen su ngeen ëppoon da di ñëw ci ba sëriñ bi ñëw bu ngeen yéesoon sëriñ bi ñëw ba dem ngeen ñëw bu leen gimiñ duggoon da ngeen di dajeeg moom dara waaye yett yi dara dal leen ci daal di ñi dajee fii tey kenn ku ne ci yéen tund wa nga dëkk jóge fa ñëw fii tund woowee dëkk ba nga jóge moo gën moo gën ca dëkk moo gën ca dëkk kër ga yow ma jóge ca kër ga ñëw fii yaa gën ca kër ga kër ga néeg ba nga génne dikk fii yaa ca néeg ndax damaa tànn ci li sëñ Tuubaa tànn daal di ne maa ngi leen di wax nag ana moo doy piis mu ne ko maa ngi nii mu ne ana Mor Cissé mu ne ko maa ngi nii mu ne ko ana gaañi mu ne ko ñu ngi fi mu ne ana gaañi mu ne ko ñu ngi fi mu nekk ci àll bii na ñoq seen tuba yu gàtt yi te tilim ak seen tilimaay bii ak seen naaju tàng wii ak ngeer meeg ñaxam meeg ngir sëñ Tuubaa mu ne am mu ne ba booba daal di noppi daal di wàcc bi mu duggee ci kër gi ba mu demee bay bëgg a dugg mun a gees na déglu leen waay ñëpp na xaram kenn yëngu mu ne na ngeen dégg li ma wax sa jàpp ko murut di alali baadoo la baadoo du xam muri sa kama di ko yëg ba mu duggee ba toog diir bu gàtt sëñ Moodu bu sa jàng daal agsi ak sëñ Moodu xabaar biñ dikkee sëñ bi daal di woote ci biir yëpp ko mu fab ampoule bi nit gaa yëpp say say say daal di fab ampoule bi samp sëñ Modou Xaban <clears throat> daal di ne ko yow mii ak sëñ Modou mii kenn mënu ñëw fajaaje gaa yi rek mën a fajaaje barki borom gaa yi rek gaa yi rek daal taal ampoule sëñ Modou mu ne ko maa ngi nii mu ne ko faj leen jug taxaw lamb poosum génne ñetti junni ne ana Mor Cissé mu ne ko maa ngi nii mu ne ko am faj leen sama aajo bi mu noppee bay toog sëñ bi daal di ne ana Mor Cissé mu ne ko maa ngi nii mu ne ko eh waaye ndaw duñ ma ko yóbbul de jox naa la gàtt xar ak saako gépp ci kër Fall ci bitim Fall sax dem leen te penc ma rey ko togg ceeb ak yàpp ci guddi gi lu yàgg lu guddi guddi tubaab yi néewlu ma daal waa ji du mën a xapp ba di rek booba ñetti oto nekk ci dëkkër gi ay 46 kenn ci ñun koo xam ne ki da naan sa morom kaay yenn du am da ngay fekk saako gerte rek nga fab sànni jàll di ko def di ko def ba lépp nag sëñ Fall du kenn kenn du moom benn bis xëy nanu ba sibbi ñu di gerte yi fu bën ma sa sibbee nag moo yee daara moom du nekk ku naan tooy nag tooy bu xëyee rek jëlatu bi kañ ana kañ jóg leen kañ kañ benn bis la fi at mennaat bët seet bi di wéeg bët seet jàlt yëpp na takk leen dama dama ko dama koo leb dem leen liggéeyal sëñ Tuubaa dama koo altine ji ba altine ji delsee mu dajale donga yi jëwriñ yi jox leen gëléem na leen la ma leboon laa fee gëléem gi dem leen rey ko dem ca daar ya togg ceeb ak waaye bu ko kenn defal benn at ñu ji gerte yi ba gerte yi sax ba jóg muy wër tool yi ba dikk daal di polis ba mu demee ba war a jàdd di xool jàdd gaa yi baale bopp ne oto bi di jàdd sëñ bi ne lii lu mu doon ñu ne ko lii ñuy liggéey sëñ Tuubaa kenn du ko yàq ayut ci yoon sëñ bi ne loolu ngeen sëñ bi ne loolu mun a mën a bàyyi li noo ma jàll fu ma dina wutuk moo wut ñu ne ko demal yow dàngoo ak moomee tool boobee daane na gaay yëpp ñaari téeméer ba juróom benn nun mosunoo béylu gànt sëñ Fallu man mii wax ak yow nga xam ne man maay wax sama yaay ci bokk sonde sëñ Daawuda Mbay ci caamin bi sëñ Fallu yi tukki di dem wër njàmm dafa dem caamin dëkk bu ñu wax caamin war a dem kër sëñ Daawuda Mbay bi mu fay dem lal bu méngoo ak sëñ Fallu nekkul ci kër bi sama yaay dem lu ko jënd fa lalu diima ca diima yi njëkk dikk wéer ko ci buntu néegam dugalu ko ci néeg ñu wax ko sëñ daawu mu dikk àbb si ne ko sëñ Fall dafay ñëw suba te awuma lal bu méngoo ak moom daa nga dimbali abal ma ne ko bisimilah borom këram ne ko sa ko doog jënd mu ne ko dama ko joxe jëru dox mu yóbbu ko dem ñu sampal ko sëñ Fall bañ ko ko sampalee mu ne fa ñu di ko ganale ba mu am fa ñetti fan ba muy ñibbi ba génn sëñ Daawuda Mbay woo sama yaay te sama yaay am nag borom këram fukki at ak juróom-ñett mosuñoo tim dem ba may dem sëñ Daawuda woo ko mu ñëw mu ne ko kii lal bii nga toogoon ci néeg bii aw ko moo ko jëndi woon dikk ma abbay ko sampal la ko ngir nga toog am na ci séen bi fukki at ak juróom-ñett dama bëgg nga ñaan ko sëñ bi ne ko yomb na waa ji ñetti fan ñett rek. ñetti fan ñett ñetti fan ñett rek. ba mu jàllee sama yaay jëli weer mooy sàmbalaaw bi jóg cët ndax mm-hmm. ba mu noppee mu tekki fa jóg ca kees mm-hmm. ba mu noppee mu tekki ab sa jóg. muy ñett fa la yem kooku muy tëj. macha fii nu fii nu toog fii nu toog. Mm-hmm. góor gu ñor dem ba Anta Sëy fii ci nit sëñ Baara mu mag moom sëñ Tuubaa mooy sëriñ sëñ ma sàmbay xarit benn bakkan. waaye sëñ Fall la nangoo dëkkal keroog ba mu faatoo ñu yóbbu ko defar ko baagale ay ndox di daal sëñ Fall yëkkati parasol di bi mu sampee parasol xetu laaj ko ngi xam geesu mu samp ñu deltu gën a dugg sax sëñ bi kàbbal ba mu ko julee baagale ñii fa mën a teg leen ñu tëdd sëñ bi ne leen dembaante mi tëdd mi tëdd leen sëñ baanaay sëriñam sëñ ma sàmbaay xaritu bëkkam waaye may dëkkal fii ñu koy dugal nag sëriñam di ca doon dara xaritam di ca dara man ñu mu dëkkalool la jabar maa ko def kon problème yi li ñu dama leen di gannaaw waxtu mi day gërëm te ku ne day wax dafa am jikko yoo xam ne danaa ko leeral sëñ Fallu boppam jëmmam ni mu ko def noonu la defal waa këram yëpp pour ni mu bëggee sëñ Tuubaa nangu ko ne liggéey la muy ab sëriñam doomi sëñ Fallu yëpp yëpp yu góor yi yër yu jigéen yi ni lañu dooni ay taalibe noonu lañ bëggee sëñ Fallu noonu lañ ko nangoo liggéeyale noonu lañ toppee ci gannaaw képp koo xam yaa ngi ci seen kanam kii nag Sëñ Karim nga nit it yàllaa koy jagleel loo xam ne kenn xamutul makaarima lox laa ko ba ko yàlla sàkkee yàgg na sàkk ku ci Sëñ Karim yi sokk ko ci keneen waaye yàlla na muy dem denc yëfam ba mu jot mu joxe ko loolu la yàlla def sëñ bi gën ci makkarim la dëgg la defewu ko ci gànnaar defewu ko Mali defewu ko la ko defee dëgg fii mu ne foo mën a dëgg foo mën a jóge ci àdduna boo bindee leer makkarim la ñu ko sëñ bi dëgg la loolu nag liggéeyum ñu njëkk ñi la mag ñi liggéey nañu koo bi gis danaa la wax tey loo xam ne sëriñ fa la mbiram dama su ko waxtaan fii ci nit ñi foofu lay yi ak moo jàng benn façon fii sa njëkk ñaan moo wenn ba bëri def ci ñu tàmbali mu laal kenn du ko laal du ko mu tilim ñu dikk wax ko sëñ bi sëñ bi bu ko laal bu ko bu ko bu laal de dama laal pour ngi toog nee bi mag ñaa ngi taw sëñ bi ne ko jàkk bu jàkk mu ne ko eey eh. yow seetlu nga li nga def gor su toll yow mel nii nga mel sam naw la def la fekk la fa nga nekk ak lam la fa war ba nga mel nii sëñ Tuubaa ñu di ko liggéeyal sa naw la yëpp nekk ñanaajo nga gànt seeta liggéey dara jar na ko ci yow ay seetlu nga ne waa ji li liggéey sëñ Tuubaa bi nga di ko dem leen dëgg waaw bu ma gis lu yàlla laal ko dem leen laay daal di dem bañ demee teg machine bi mu mel ni dóor na ñu teg ci saaku teg ci saaku teg ci bopp di ko def ba def ko ñetti fan mu ji juróom-ñeent sax ñeenteel ba ñu ji ko mu lànk mu bañ mu bañ bi biñ dikkee indilaat ko sëñ sëñ bi ne tey du ma ci boole wax tibbal suuf jox ma rek ñu tibb suuf jox ko mu ñaane ñaan tabli na ko demal demal wol wol ko jeex noppam day jox da nga ko liggéey li façon kenn bëgg sëñ Fallu maye donc nga yëpp dañoo maase na du dem sëñ bi woote ne maa maye ñu ne ko xam nañ ne yaa ko ma may ko waaye du dem sëñ bi ne dama war ma wàcc mu dem mu ne ko neen gone yii sama fas yi maa ko maa maye waaye ji ma ma kenn ma sa koo gis ay jëli ca seen tool yi waaye di liggéey maa maay sonko faba ligu day yóbbu ko sëñ Fallu am na fi oto boo xam ne bii wutir bu na rafete kenn mosu koo gis sëñ toolu wàcce ko di ko doxe ngir liggéey oto bi du taw ñaari kilomètre képp taxaw ndax tàng sëñ buuse di ko ne bu njàgg sëñ buuse ne ko oto bi ko war a delloo seet ba nii moo ko ne tax mu taxaw wàcc na ko ubbil ubbil mu ubbi bi ne ko eh da seet fa tugal ne fa tugal ne ñu ñu def léegi nii nga mel ma am ma ma ma am soxla fas wu ma war a liggéey li sëñ Tuubaa di fekk la ci nawle nga gënal ma ca ma ma ma jële fa ngir war a liggéey sëñ Tuubaa nga tàng ba muy laa jëriñ waaye seet li nga def waa ji li ubal doo ko dégg mu daal di barke sëñ Tuubaa sëñ bi yor na oto bi ba ni mu ko may sëñ ak Abdou moom maam Thierno bi nekkoon dar man na la xëy soo woo ko mu dikk mu ne ko fas wi dama ko doon doxee léegi li ma ci doon dox man na fab ko yóbbu mottalil ma ko waaye dootoo dégg aw tàngooram boo koy sëñ ko maa ngi ñaanal bépp murit bu yaakaar sëñ Tuubaa te bëgg lu baax màggal ko su rajo bii ku ci ñëw mën na maa wàcc sëñ Tuubaa yitte yoo mën a indi nu mën a deme sëñ Fall dana li may jeexale mooy Léopold Sédar Senghor dafa ñëw fii gane si sëñ Fall yenn fi ba ngoon sëñ bi di ko bijjël biñ demee bu jubatoo Senghor na sëriñ bi ngan gi neex na lool waaye man damaa juum sëñ bi na ko juum mu ne ko looloo juume mën na ko damaa jóg yoon woo xam ne wii dama koo jóg ba noppi te mënut a pomp te waxuma loolu laa te yoon wi am na yett yu ci bi ne ko yett yu mu mu di ko wax sëñ bi ne ko yett yi nga wax mën naa mën a ko danaa ci teg beneen muy ñeent waaye bi ma ci teg nag man waaw ko noonu la waxoon mu ne ko am na pap buy fële sëñ bi ne ko danaa di ji pakk bi maasale ko ba ba adduna tukki du la bët loo ñaari la mu ne ko kàmm mu ne ko danaa ko maasale booy dox man ngaa gëm doo ci daan ba ba adduna tukki loo ko ñettee loon mu ne ko luy doge mu ne ko danaa loolu muy man moo di ab dox pour wutal ko bu yóbbal bu mu yóbbaale li yoon wi sori sori doo xiif doo foo toll yaa ngi ci kër waa ji nguur si nangu la dox. mu ne ko dinaa dox mu ne ko nangu la dox. moo ko mu dem bay dugg mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko li gàtt mooy lii nga yor na ci sa xel dara doo watu ñu wat la doo desu la demal. kon dem yéen ñi dem leen. asalaamaaleykum wa jërëjëf eh, eh, sunu wayjur Baye Gora Seye eh, kaddu yi jëlale na li ci ne ci baatin waaye ak set gi waaye wér gi ci ma fekke waaye teg nag tege gi ci nose gi nga xam ne lu ci nekk fàttewut na jataay bi mele bu daanee la rek da mel ne yaa ngi jàkkaarloo ak jataay bi yàlla nu yàlla fayal sëriñ Falilu waaye mag ñi yàlla nañ fi yàgg ndax ñooy référence ci ñooy delluwaay xam nga lii doo ko jàng ci benn téere te lu ko gën a wér newut ci téere waaw lu mel na ah, machine nga xam ne sëñ Fallou wane wut kii man ci machine bi waaye fi pas-pasam toll ci sëñ Tuubaa lay wax machine bi maa dem ba tugal fekk la fa ci say ma jënd la tànn la ngir war la di la liggéey la sëñ Tuubaa nga ñëw di tàng sa tàngaay wi lu ko jar ku tàng kenn du ko jariñoo waaye gis nga ba mu ca noppee ndax oto bi du tàng dañu wax ne sawara du lakke ndox du sedd yàlla ca ne bu ci yàlla gënoon rek du tàng bay lakke ku le weddi nga laaj sa waraw Ibrahima ba mu ne bërëx di tàng sun borom def ko ne yow tàkkal ca tàngaay yow nga ñëw waaye moo tax yal nañu yàlla fayal mag ñi waaye yal nañu yàlla fayal sëñ fallu kon sëñ Gana dégg nga fi Baye ga Baye Gora daaneele sëñ euh, sëñ Fallou ak bëggam sëñ Touba mandargaal na ko ci jëf waaye mandargaal na ko ci ay bëyit nit ñi ñi nga xam ne yàlla xeer jox na leen xam-xam jox leen leer ñoom it mandargal nañ sëñ Fallou ak bëggam sëñ Touba kenn ku nekk bind nga ci day mel ni nag nit ki li nga koy waxal sëñ Fall nee na woon fu maane teewee moo ne duut fa amu yoon lii bàyyi góor a wax jëf la waaye sëñ Fall ci boppam it waxal na boppam sëñ Gana.

te yéen ci loolu it fexe ba ndox mi daw ci daawal ci biir ci taxawaay bi nga xam ne Cheikh Mamadou Fadel eh, am na ko mu ne la it am na ko xam dañuy wax ci bogo la waxoon eh, bi dafay mel ni tuubaa ak jàmm la bi ubbee ay buntam ñeel ñu koy tabb waaye nag ca dëkkaale tam di jawaare xabbul asri xalifa xam ne ci gën ci kiy wuutu mooy Cheikh Mamadou Fadal ci kaw suuf nga xam ne xayril xalifa nga xam ne kon dafa rempli lu war ci moom ci aw melo diggante diggante na sëriñ bi ci taxawaay bi war yëpp mu ne booy seet ki ci gën ci jamono léegi moo fa nekk te mooy Cheikh Mamadou Diagne waaye ak mbirum Sëriñ Tuubaa bindu boppam day na ko ndax moom day Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne eh, mahat bëgg ko

رجل فقير قد أعطى تجارته يمكن لتنقاد به الحقائق وجد أن الأصل يمكن بإجاحة من مثل يقصد بل إجاحة للمسلم يقصد وقد من المندب أنه مظلوما سيرا بمسألة ومن غير الإنسان أن تلمن كتك من كورا بوأنه بوأنه واحتجاج إلى سيرابيا ويقصد بالبنية وأنه يبني القديم الذي يقع بفاضلنا ما نال فضلك لا عند وربك فقد تجيلك في علم وفي أدب وفي سواء وفي فضياتك لقد تمسكت من ترك من القمر فقد بحر من الأنوار الجزائر الله يتجد العظيم في جهد البيت الليل قابل من قبل الخميس إلى وضع الخميس ماذا يسمى في القمر لكن الجهد يوجد من الطيار ومن منطقة الخميس ويجب أن يكون جميع dina doon suñu ko jëlee ba waaye yeneen yi xam nga yeneen yi yow leen mais it ma wax ko yow ko yow mën a ko yow mën a ko yow suñu ko jëlee ba suñ ko bi nga teg seen baat yi dugg gën a dugg ci ak suñu baat yi laa leen boo wax ni su ma bu dina ko dugg dara amul ci kaw suñ ko ne kon dara tudd na ko dugg ñaa ko dugg ci kaw ndax ki ki ki yow tam suñ ko boo ko wanee ñu kaw la suñ mooy daal ñu gën a jeexal na la leen ñaa ko yow ñaa ko tax suñ ko lépp comme yéen loolu dafa gën a yëngu sama xarit wax tam ne yow da ngay doon xam si nga xam lii dafa gën a mën mën tudd waaye loolu nit la ko xam dama wax toujours ne seen fàtte gën a jaay doon ko xeet ndax marché bi ci ñëw gën a tudd mën a am ci xeeraay bi nekk ci seen fàtte gën a jaay seen tubaab mooy xeet moo tax xaw mu am bëri mais lan la jaay seen tubaab mooy lii la lépp seen tubaab bi dara tax gën a mu boole waaye nga xam ne seen tubaab moo doyati seen fàtte te ñaanu seen fàtte mu boole ñaari xeer yooyu ku jaay doo ënd waaye ku jaay kay ënd nga boole ñaari xeer yooyu faw loo tudd suñ ko daa boole ñaar yëpp loo tudd la biñ ko jëlee suñ tubaab jàpp bénéfice bi tey ndax dañ nga ko def bu ko baax bénéfice boobu nag dañ moo wax ne fokkoo joxe addiya comme ñu joxe addiya loolu lépp ko joxe ndoom bi addiya jëlewul njabaat ci addiya daf ko jaay jënd ko ak taal bi ba jëpp ci taal bi dafa ñëw fat taal bi joxe addiya ñu ko ko xam ci comme loolu loolu kon ñu ngi jàll ci baax alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil wa molana muhammadin wa ala wa ashaabihi tayyibina taahirin ginnaaw bu ñu nuyoo ñaanal Cheikh Mouhamadinil Mountakha alxalifatul am mu yàgg fi loolu te gën a wér ñaanal ko njabootu sëriñ Touba gépp ñaanal sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne mooy buntu sëriñ Fallu mu yàgg fi loolu te gën a wér ak sëriñ Fallu gépp ñi ngi ñaanal it Cheikh Abdul Karim ibnu Cheikh Mouhamadul mu yàgg fi loolu te gën wér euh, sëriñ Fallu ñu ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu Baye Gora Seye di nuyu sëñ gànn Messere Muxtaar xam naa nag la nga xam ne moo daloon Cheikh Awa Balla Gueye ci kanam Alaaji Baara dafa am genn màggal goo xam ne daal damaa xamul fu mu xeweeti woon Alaaji Baara teewoon ci jox ko kàddu mu waxtaan ba noppi ñun nañ jox Cheikh Awa Balla Gueye Cheikh Awa Balla Gueye jël micro bi daal di maasa aqulu baax dal amiin yi ginnaaw bu Amine waxee ba noppi man xawmatuma lu ma ci teg euh, alaaji baar moom la sëñ Abdou Karim mi waxoon ba mu doonee xalifa mu ne ko li tax sëñ Fall tuddee la Amine maa ngi koy doo a xam Amine ñi lay woowee ndekke bu doomi suñ tubaay noppee ndeke yaa war a fab te kuñ wóolu rek lañu war a jël teg ko ci loxoom euh, muy kàddu gu dëggu man damay wax tuuti rek ci turam bi ak lu ma ci sama sëriñ waxoon sëriñ saaliwu xam nga alxuraan dana xul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi fa bi saalika fal yafrahu huwa xayrun mimma yajmaun kon fadlullaay du lu ndaw ginnaaw suñu borom nee na ngëneelul sama ngëneel ak sama yërmande lu ngeen mën a dajale ci àdduna ak alaaxira moo ko gën ci àdduna ba àdduna daj wenn tur la mu sëriñ Fallu ginnaaw bi ñu feeñ ñëpp moom lañ ko tuddee ñu bootu ci ginnaawam ñu leen di woowee galas galas ji am secret mënuma woon a xam lu mu doon waaye mën nag sëriñ Saliou ma ko feeñalal ndax euh, janatul maxwaa la ma toog ci wetam xam nga sëriñ bi ku ko xam xam ne moom janeer bëggu ko fu mu toog dañuy fay làmp yi euh, mu mu tëdd ci njowaan yooyu ñu ko daan defal di ko ràbbu mu daal na gees yem ci man daal ne ana kii may bëgg a tontu abdulaat jaxate na ko fàllu jatara la mu daal ne ma tur woowu ko tuddee woon doy di ci sëkk yow nañ lay wooyee galas sëriñ Saliou ma ko wax de daal ne ma tur woowu de kañ ko tuddee woon doy di sëkk ma ne ko monte man de samay mbokk sax ñëpp galas lañ may wax mu ne ma doy di sëkk de daal ne ma tur woowu ko tuddee woon doy di sëkk ndeke kon fàllu ji xusuusiyatu la ci fàllu li tax sëñ Fallou lijjanti ba ne ana jalas fii Touba jalas jooju mu mujj doon galas ñi nga xam ne sëñ Fallou kenn xamul doon ndeke bëgg naa soppi tur wi ci mbooloo bi ñu ko tuddee jël galas ji taftal leen seet leen doomam yi sëñ Mourou Boussa Dieng Alaaji Baara ñoom ñëpp ba ci njabootam gi doom juñ am galas lañ koy wooyee sëriñ Fallou Mbacke nag mënatuma cee wax lu gën a kawe lu bàyyi góor a wax ak li si liñ gànne mesara wax ndax Baye Gora moom naqaluwut tuxalut daa fekkee euh, sëñ Gana dafa tuxal waaye li mu tuxal wér na ndax jëlee na ko fu wér waaye daal li am solo ba am solo mooy sëñ Fallou amoon na ci sëriñ tubaa dégg goo xam ne musuma gis ko jamonoon te kenn am ci dégg gu toll noonu dégg googu sax tëwoon na saxaaba yi ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom nag sëriñ tubaa dafa ñëw mu dégg ko déggin woo xam ne doy doy na waar ndax Euh, bayit woowu ngeen indi ne sëñ Moussa Ka ko wax mooy doomi Samsin wax xamar ba ba teg ca lam ca teg ba àgg ci ne moo nàmp yaari meeni gor loolu dafa may sëñ fal loo ne doy na waar ndax sëñ Fallu sëriñ tubaa mooy sama waajur dara gënu koo neex nga am loola man koo bàyyi xëy jaay sa njureel jëndee ko taalibe ci junj boo xam ne sëriñ tubaa junj na la ko rek te junjandoo la ko ak mbooloo yow nga jóg am ci dégg gu toll jël saw kayit bind ci la nga ci bind euh, bayit nag duma ci jaaraat ndax ñëpp xam nañ ko daanaka ba mu noppee ba jaay kun juréel gi jëndee ko taalibe ba jël la cay ak njëg jox sëriñ bi dana ko fal taqbaluha suñu bàllu foofu la yeewoo ndax suñ mën naa nangu mën naa bañ a nangu mu ne ko waaye nag moo ko nangul nag yaa malaasu ndax dama xam ne yaay wéeru waaye ma wéeru ni ñëpp boo ma koy nangul nang ma ko nangoo karaman te bañ maa jéppi ci sag mbaax ndax yow da ngaa tiim ñëpp di rafetlete kenn y yow faalewoo kenn laa siltumoo baynal baraaya alama yow fi ne amoo looy wuti ci kenn ñëpp lay wuti sëriñ bi ne ko amal jawaabu fa fil masalatayni sëriñ bi da ko ton de daal ne ko falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min xurati ayunin lii nga def tey lu ma ko gënal amut sedd naa sedd xol gi nga xam ne am naa ko sama digg ak yow ëllëg rek lay leer njëg moom mooy loolu yi mu ko wax li nekk ci man danaa ko def ci yow bu ci xajutit ma xaj xajal ko ci ñaareel ba sëriñ bi ne ko lii nga def muy njëg gii nga ma jox te moom sa njëg jox ma ko yasurrukum da nga ci bég danga nga ci bégle wa yanfaawukum dana la jariñ da nga ci jariñ wala yadurrukum doo ci loru te doo ci lor keneen kon euh, sëriñ Saliou it mas naa wax ni dafa laajte ne doomi suñ fàllu yi nañ ma laajal nuñ demee loolu xam naa nu mu xam naa it kër kañ dem eh, bokk bokk na ci ñi gën a doon ndaw ci saayir bañ accès dañ ne ko ah, kooku day tabaxam ba tubarkal sëñ bi ne loolu de laa foogoon ndax sëriñ fàllu da leen fee bàyyi woon ne ci ñun ñun ñi bokkal suñ tuwaa lu mu am jox ñu lu mu am bokk ñun bàyyi doomam suñ ko masaan a wax mu ne cere bàyyi jàmbur du ma ko xonte sama doom suñ fàllu noonu la def ay doomam gis nga doomam bi tey foo ci dem ñenni la gis ngeen fii fii sëñ Abdou Karim ci suba maay waxtaan ba wax kiñ ko dippee muy sëñ Abdou Karim mu mag ma mooy taw sëñ fallu sëñ Abdou Karim daal ton ne ah, waxtaan ci moom jot na nag daal di jëlal boppam kàddu gi daal ne Euh, sëriñ Fallou bu mosaan bu nit mosaan a jógee fallu ba génn gis ko niroo gi ëpp na da day wax ne waaw man ndax damaa jommi sëñ Fallou ci néeg bi ci biti nga xam ne kon loolu niroo gu doy waar la waaw léegi nag ñu ne sëriñ Fallou daa mosu mujj ne ko ah maa yow suñ mbir dina doy waar lool ndax li may liggéeyal sëriñ Tuubaa kenn mënu ma cee wuutu la daloon sëriñ Ahmadou Yadaali ca Mbàkke ñu wax ni Euh, soxna Fadja da daan gis bu sëriñ bi defee dara mel na suñu amul dal da ciy dolli dara soxna Fadja naa ndax dana sotti kii kat du àndandoo kenn te mel na ni amul dal bi nga ànd ak moom. juróom-ñeenti at la am sëriñ bi woolu boroom saam ba mu ko woo ko wooloo ne ne ne ma indil ahmadu dal waaye jërut muy ñëw jolof gi lañ ko fekk mu ñëw sëñ bi téye ko ay fan bind ab leetar daal di jël bu boole ca borom saam teqar ci leetar bi. na mu ne woon mu ne waaye ndaw li nag leetar bu ko xool këmb bu ko xool mu agsi borom saam te xar ci ko gis Serigne Touba bind ci ne ko ahmadu bi sama borom moo koy laaj euh, këmb bii ci la càngaayam ne waaye nag moo ko beral boo ko seetloo ñi jiitu ñëpp suñu ahmadu dal dong lañ ci lañ ci ber tey bi ma waxee loolu loolu xaw na koo yëngal ba mu fàttali ko ci turandoom yi lu doy waar daal na ñu bari sax dañoo jàpp ni Euh, dafa kii rek ñu tuddee ma ko déedéet daal na am na diir nag ñu doo ma ko tuddee daal na nag am na pàkk yu ma am ci yoonu Touba Bogo ba ma ko amee ba noppi ci laa doog a xam ne ay toolam la te daal na ba ma ciy dugg xawuma ne moo ko moom daal ne fii ngi ma dëkkee nii tey ci ay toolam la bokkoon nett na nettali na ci nettali yoo xam ne li mu yeesa tax mënu ma ko jàpp waaye nee na fii ci ay toolam la bokkoon lu ci nekk rek nee na bi muy am ndax nee na sëñ def gi ko def looloo mujj waaye mas mas naa doon tool yi sëñ Abdul Karim mi ngi ko tuddee nee na daal loolu mu ne mu mayit am naa tawféex loolee nekkoon ci ma moom di ci man loolu sama tawféex la loolu wax na ko tey de te ci micro la ko waxee kon moom li ma xam ci moom bari na bëreegut waaye wax naa fii keroog ci kanamam bàyyi góor a toog ma ne ko daal li may tënk mooy jaxasoog doomi Sëñ Tuubaa ku ko def téewul mën a jaxasoog yow daana jafe lool ci ku jaxasoog doomi Sëñ Tuubaa mën a jaxasoog keneen loolu wax la joo xam ne bëgg ñëpp lañ bët li tax ma wax ko euh, lu mu bon bon am na ku ma jaxasoo am na ma xam ci moom tuut jaxasoog moom mii amul lenn lu ma dérange ci moom ndax li muy def lépp ci yoon la ko teg mooy ci bëgg sëriñ Fallu te fas yéene ko liggéeyal te loolu yi ay ay magama ko seere te li nga xam ne yàlla dogal na sunub xame ca daara Serigne Saliou la loolu danaa leen ci wax tuuti xëy na waxtu wi du ko maye waaye maa ngi leen di yëgal ni ba mu ñëwee gis ma ak Tafa Sarr daanaka ñuy ay gone xam nga lu ñu njëkk a wax xam-xam du ay caaxaan xam-xamu yàlla def nañ duma leen xeeb ñun taxuñu de waaye ka ñu fi teg dana ki leen fi teg xam naa du fi teg ku ko matiwul dégg nga dégg nga jooju wax jooju wax du ma ko fàtte mukk ndax loolu dafa dafa teg Serigne Saliou ci kaw daf koo tagg ndax am na ñoo xam ne gët ñëw nañ fa waaye daanañ doxee ni ñii ay gone lañ ndax am na ñoo xam ne daan ñëw di wax ne sas wi gone yi ñoo ñooñu ko sas waaye sëñ bi sasuñu ko kon ñoom wuute na ak ñoom kàddu de te ba toolee desee it bañ ne ko barab sàngam la des dana du fa jóge mukk te àggut te ñun ñoo ko wax xame bi loolu la ba yàlla dogal lii sama diggante moom tey waaye maa ngi leen di yëgal nii këram gi am nañu fi xëy si ñoo xam ne dañoo mel ni ñu dem marché yor seeni bitig saa yu ñu xëyee fii lañuy ñuy si mu teg leen ci mbaar mu sedd guy bu añ jotee mu jox leen ñu añ jox leen boisson jox leen ni doom su duggee ba ci biir daal ne sama waa kër yi ñaata lañu li ci gën néew ñaar fukk ak juróom lay doon li ci gën a néew laa wax de démb ñaar fukk ak juróom-ñett li ci ëpp ñeen fukk jëm kaw la kenn ku ne mu yëkkati la muy yëkkati jox Lamine Mbodj mu yót leen am na si Lamine Mbodj daa ñëw ne ko sa waa kër yi mu ne ko Lamine Mbodj ñoo ñoo ma gën a ñor ñun jërëtu nga ma koy ma koy nga koy wax saa yu ma duggee rek xam naa ne ci ñoom laa war a jëm soo gisee mën a tekk rek daa am lijjanti bu mooy lijjanti waaye su ma noppee ñoom laa ñoom laa jëm saa yu leen rombee nag dugg ci kër gi ñaan ne lañ koy ñaanal ñaareel ba kenn ku doon gan te xam gër kër gi lu mu néew néew bu ñu laa demal barab sàngam bay boo nga xam ne lépp fa lay fekk musuma gis ku dugg fii ci gan ñu fàttali la te loolu daanay am de te bu amee dañuy xam ne jaadu na nit nit nit a tax waaye ñi nga xam ne ñoom la ko siqal muy waa këram ñi fi nekk fi mu ne nii mooy soxna maam ami ak soxna fat bintu mii ka ca des ma nga Amérique waaye léeg mu ñëw wenn tëralin wi la su demee ba dugg ci biir mooy jël téléphone ne ko sal sàngam moom si bi la de day woo daam ne ko daam sal sàngam ñaata fa ne te téléphone bi lay téye de daam ne ko nangam mu mu soxna soxna su fekkee soxna si moo aye wala soxna si soxna maam ami wala soxna Fatou ku ci aye rek mu ne ko sal sàngam day nangama fa ne ñoom it ñu mën a jàpp lañu waaw lim leen xirtal moom nangu nañ ci xirtalu ñoom loolu nag lu ma xam la bu noppee fur ci kanamam lañ koy defee gis nga bàyyi góoram yi ñu dendal nii dafa woote ni nay njëkk añ nay njëkk reer woo ay woo ay soxnaam ñu toog woo dongo yi ñu toog ñu koy toppatoo nay njëkk añ nay njëkk reer loolu xam lu ci mag mu toll nii di la yendu di la guddi la ko bëccëgal boo ko doon jox ay milliards te cof ko ci loolu cof nga ko ci lépp c'est bu ku doy waar la su ko defee soxna yi ni ñuy jàppee mbir mi lu ma jaaxal la bu ko defee danañ tibb bool yi toll noonu indi ko ba ci biir néegam bu defee dañ tibb yóbbu de dañuy indi ko ba ci teg ko fekk fu fur bi bay njëkk a dem moom mooy toog ñuy def fruit bi fi bu fekkente ne gis nga gis nga fruit bi ñëw fii ak boisson bi fi ne am na ku fi dugg ba xool leen te yëgu leen na xool la leen ba xam ñaata fi ne bu ñu àggee dañuy ëppal lépp du ko xool ngir bëgg ko caa yemale waaye day bëgg mu ëpp gis gis ngeen li ma leen wax fi am na ku fi dugg ba xool ñaata fi ne te yéen si xamu leen ko nit ki mën naa dugg day kanaayal nag bu fekkee miinoo kër gi doo ko xam am na ko yor ataaya ku naan Pape Ndiaye ataaya loolu gan kër gi am téeméeri junniy gan ak fukki gën a ci yem loo lam nekkoon du ci jóg li ma la gën a li ma lay wax daal te di la ko wax mooy jëgg kafe li ma lay wax daal mooy lu mu lu mu néew néew néew néew bu fekkee kenn nekkul ci kër gi ñeenti xar yu mu du manqué kenn nekkul laa wax lu gën a néew fukk fukk fukki xar koo xam ne da koo xam ne daayira day ñëw di la siyaar si bala ñëw ñëw nga jëndu nag te buñ xoolee enveloppe bi nag wa ëpp ko doole fuuf loolu moom lu ma seere la te wax naa ci bëccëg bi may waxtaan rek nii wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu azimun xalbu sëñ Fallou xoolal séquence bii mu def ci magam ji digle ñëpp ñu siyaare ko loolu xam nga lu doy waar la lu ma ta waxtaane la digge ca te lim ci digge rëpp am daal ne man de bu ma toogee fii xam naa fu muy féete ci kër ga dinaa tàllal samay loxo ndax xam naa dem gi dana jafe ci man xoolal loolu ndax nit bu fekkee yàlla dogal na ñëpp di la déglu te loo wax ñu gëm ko yellontikoon ngay wax luy jëriñ nit ñi tey ji ëllëg moom li sëñ Blaat na woon wa maa arsalnaa min rasuulin illaa bi lisaani xawmihi bu leen defee ne ab yonent rek a tax yàlla di ko def nabiyul mursal ci yonent bi lay daal na képp koo xam da nga naan dama ñu ne ah mursal nga ci ni ngay wax moom nag bi mu doonee mursal yàlla dëgg dogal ñëpp di ko déglu xel mi da ko dafa sell te sell gi xel mi sell foofee la koy jëme ne lim ci jot a yor day bu fekkoon da ko jëmee feneen kon balañ ko turu àddina tukki ndax nit ñi déggal nañ ko. jërë ngeen jëf yàlla na fi yàgg loolu te magam yi ànd fi yàgg ànd ak moom yàgg fi loolu te wér taalibe yi ànd ak moom ci liggéey bi jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, sëñ xam naa foofu lañuy ñuy tëje jataay bi sax ci Baye Gora euh, indi na kàddu yi nga xam ne seere na ko ci sëriñ Abdul Karim euh, daf ma def loo xam ne moom ma fàttali lii ca daf ma marqué nit boppam daf ko jege am na ko doon wax ko ma mas di wax na ma man de bàmba ji li may rëy rëy bu ma ci yëgutoon sama bopp sama yoon du ci nekk sama bopp rek ma ci bàyyi waaye koo gisit daraa koy bàyyi fi barab Euh, sëñ Abdou sama wayjur dafa génn àdduna sëñ Gànna te àdduna sama wayjur ma ci gën a ñor mu jekki-jekki rek woo ma téléphone na ma sa kër laa jëm si ma ñëw mu ànd ak ñi war a àndal ñëpp bi ñëwee toog sëñ Fallou Diattara mii ñëw sëriñ bi ne ko damaa bëgg li may bëgg wax ngeen déglu ko naa mu ne ma influencé wuñ ma ci demal demal jaale ji Fallou Galass te normalement war naa mën a ne bu bu nekkoon it jaadu na ndax nit laa te damay fàtte kenn waroon na maa mën a fàttali na ma njaalum fàllu Galass ma waaye fàttali wuñ ma ko influencé wuñ ma ci pour na ma Fallou galas sa nit war nga caa dem ñëwuma ci pour hasard man maa ko xalaatal sama bopp ñii ñii di ñëw it kenn ko xamoon fi ma jëm si amul waaye maa xalaat na yéen da ngeen di liggéeyal sëñ Touba te waar wi ngeen di nekk di liggéeyal sëñ Touba ñun ñoo leen war a fekk si ci waar wi ndax bu doon football kat wala musicien wala caaxaankat ya buñ ca xewlee ña caaxaan ñor ñëpp dañu leen di fekki kon nag yéen ñi ne ci waaru sëñ Touba bu ngeen xewlee ñun ngeen war a gis loolu moom moom la ma sama xalaat may moo tax ma jóg seet si la ma xam ne kii la sëñ Abdoulaye waxoon na kuy liggéeyal sëñ Touba taalibe la war a fay moom bàyyi na xel ñiy liggéeyal sëñ loolu it laa gëmee ci moom ci ku mel ne Baye Gora Seye ku sëñ Fallou tarbiya mu wóor la ne le ah faatoo la teetaa bi àjjana loolu du lu ñu laan natable sa adduna it dootoo ci ñaan kenn dara njël suñ borom fàggul na la ko koo ne fa moom mel na kuy tarbiya waat sëñ Fallou rek da ngaa gis ji koy sëñ Fallou ci moom waaye bu du toon loolu du la fa gis loolu loolu danga koy jàngate ci mag ñu mel nii xam nga ki gën a naqaree téye mooy dongab tarbiya bu am ngërëm daanaka gisatut kenn lu ko bàyyi fi barab rek dara la beneen bi nit ñi eh, dofuñu bukki dégg naa dafa séen jant bi muy xonq mu ne gaañi lee ak ndawal la nee na bukki yépp fexandoo ba mu yàgg mu seen lu duti bukki tëf ca mu naa ah, ñëpp nag dofuñu naa daw ñëpp dofuñu waaw waaye mi ñëw ci sëriñ Abdul Karim te ab jaayil néwu ci ay nit piir yu mën a yor réew mi yu mën a yor Afrique ñoo fi ñëw ñuy ñaanlu si bi ma gën a marqué mooy bërki démb bi may bi may bi may bi may may sant sëñ Tuubaa boobu tëyatuma ko mooy bi may jël kàddu benn tubaab tubaabu française bu weex tàll ànd rakkam du jullit dafa ñëw ci rang gi wax sëriñ Abdul Karim na ko sëñ Mbacke Niang moo ko doon jottali mu ne sëñ Abdou Karim dama am sama doom joo xam ne ma nga France euh, yaakaar naa fu mu waxane fa la jógeeti sax ci biir Paris jàppoon naa ko dëkk ba jàppoon naa ko ndax dafa ma ñor mu ne ko dafay feebar te hôpital yëpp yóbbu nañ ko fa mais duñ gis li ko dal ma ñëw nag ngir sàkku ci yow nga ñaanal mu wér ma xam ne tubaab bu bu weex tàll jóge Paris ndeyam mag baayam day français te bi ñoo ñoo fi jële woon sëñ Touba na ko lii nga fi woote du sotti nañ la fi jële ku bokk ci ñooñu ñëw ne lim doon woote mooy dëgg ndax moo mën a saafara sama sama doom yi ma xam ne loolu mooy sëñ Touba sëñ du yamut ci ñaanal ko daf ko ñaanal ba pare ne nañ na ko nañ la yóbbu ci biir dalal la boo xewlee ba noppi nga dellu te booy dellu nga bàyyi fi sa numéro téléphone te yóbbaale numéro soo demee na naan lii ñeenti fan bu saafara woo nga wax ma bu saafara nga woote waat ñu xam fi ñu koy teg kon loolu mooy sëñ Tuubaa moo taxoon sëñ Tuubaa ne defar leen seen bopp ba ku leen gis bëgg leen ngeen defar seen i jikko ba ku leen ñam du leen mën a bàyyi loolu nag day mel ne mooy tedd ngay jikko ji nga xam ne moom la tudde muy makaarimul axlaax beneen bi ci topp mooy ma jàngat ko ci sama bokki dongo yi fi ne wax ne ko mën na maa yem ci sama bokki dongo yi man ñooñu dañ dañ dañ man dañ ma neex ni ñu mel ci biir kër gi teraanga yi yëpp ñoo koy toppatoo waaye bu noppee dellu seen daara doo dox boo leen fekkee ci màggal goo xam ne sëñ Abdou Karim da leen faa yebal ci ngay xame ne kii tedd ngay ji ko def na ko ci ñoom mooy kenn du leen jéppi ca lañ war a nekk lañ ne waaye mbuus du wadd te faruñu ko def ci ab saako su ñuy wax ak yow maanaam xel mu sell mi ñuy waxee ak yow ak yar biñ lay jox ci ngay xamee ni ñii dañ leen a defar te nag sëriñu tarbiya lool lañ koy doyee kon lii nga wax ci sëñ Abdou Karim mën naa ci seede foofu nag lañuy bàyyee ak bay Gora mu tëjal ñu jataay bi ginnaaw bu ko santee bu baax a baax ndax lii mu may ci temps jafe na te ab barkeelu la ndax wóor na mën a ñiy seetaan jataay yi daan ci jariñu ñu koy déglu daan ci jariñu waaye ñun ñi fi teewit ñaan gi ñu ñaanal ak ci baatub sëñ Fall boobu nañu dox leen jaroon na ñu fay ko lu dul jeex cam wax ñu ko kon góor ñi ngi sant bu baax te di la gërëm di sàkk nga ñaanal ñu sun caméraman yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñëpp ak mbooleem kuy seetaan jataay bi te fas ku yéene eh, déglu ñoom ñëpp nga booy leen defalu ñaan ñu jox la nga tëj jataay bi bismillahi rahmaani rahim inna ansalnaahu fi laylatul qadr ëtma laylatul qadr laylatul qadr xayru min alfi sahrin tanazzalu salaam waftan lana kulla in kunta fatiha wa lissaaliina min alxayraati yàlla asbil sutuuri aslil humuuri kaasil xiyooru bilaa kidaay xalallahu aajaati wa aajati kulli muslimin bi jaayi Cheikh Mamadou Fadal barka lañ fali taawi lana umrana saahilana badana wa hablana rasda wa tawfiqa yàlla yaa malik al mulk yaa man jàll an xawatin irham jami alwara yaa haadiyan rida yàlla mi dimbale yàlla na dimbale yàlla mi taxaw yàlla nu taxaw yàlla mi musal yàlla nu musal yàlla mi wërsëgal yàlla nu wërsëgal sunu taali bi ak seen goog it yàlla na ko yàlla denc bi yàq agut ci barke Seex al Xadiim sëriñ Fallu sama sëriñ li ciy des képp koo xam ne kii màggal gii nu jëm muy Kazu Rajab di bisub sëriñ Fallu sa xel nekk na ci ñëw Tuubaa wala nga ñëw Ndindi wala foo ko mën a màggale na la wóor ne na wóor ne sëñ Fallou teew na fa nangu sa màggal kon nag yéen a ngi sëñ Touba ngi nii faju ajo ngi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëñ ci barke Seexal Xaddim nun ñii yalla na yàlla ak sëriñ Touba dollee fa suñu ajo ci baaxu Seex ma Bamba barke Alaaji Falilu Mbakke allahuma salli ala seydina Muhammad wa sallim barke sëñ Fallou